gis nga bala loolu bi lan moo tax mu exceptionnel euh, parce que man sam bob dama fa dem mhm. donc ñu wacc ci fofu amana xamuma ñep mais y a une bonne partie bi nga xam bi may def la rencontre man ak compatriotes yi nekk li bi fa lañ nekkoon donc fek fa une situation très très très très difficile mhm. décourageant en réalité décourageante ndax ñom dañuy wax ni depuis 2014 gisuñu autorité sénégalaise fofu ambassadeur bi fa mujjé dem 2014 la fa mujjé ah donc bima ma yegsee gars Content, daal content, c'était extraordinaire parce à à cause des questions sécuritaires ak yu mel non donc bref ñu dem fa gis autorités yi gis leen depuis ñu ñibbisi aussi suñu ambassadeur bi nek Tunisie di fa dem bref lepp luñ fa waxanté won ñu lijjanti ko ba ñu yegg si dem

métti na certes mais am ngeen avenir ci dëkk bi ndax dëkk bi dafay changer dañu ñëw ci dynamique changer ko et dañu soxla toute la jeunesse de ce pays là loo tuuti tuuti loo mag-mag xamal ni bokk nga ci ñi war a changer Sénégal c'était vraiment ce message là lañ leen yóbbu loon di leen woon ni solution yi ngeen di jël ak xaalis bi ngeen di dugal ci gaal gi amaana bu lañ ko dugaloon fii ci réew mi di ngeen mën a réussir ba li leen dal foofu du leen mës a dalati ñi nga xam ne te ñoo ñibbisi ñaata temps lañ def foofu noonu